rawatina mbokki taamu seen émission Jazboul Mouride di ko teewlu kon saa su ne rawatina talaata yi fii si seen télévision Lamp Fall ak rajo bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar nuyoo beeg ziar bi tàmbalee ko si Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ko nuy ak a ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall mi maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. di beral ay nuyu ak ziar ak ñaan sëriñ Cheikh Ngounda Fall mi sunu yaakaar tey ak ëllëg moom maam Salih moom maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ak sunu sëriñ sunu jëwriñ sëriñ Mamou Ndaw Baye Fall xam ngeen ni mu wet gi waaye tey sunu boroom dogal sëñ Mamou ñu am mbégte lool sunu Serigne sunu nijaay sunu xarit. Serigne Diadji dootuñu ko présenté xam ngeen ni jaar na ay yoon si euh, barab bi waaye jaar ay yoon si émission bi te saa su jaaree rek mbokki taalibe yi dañuy woote saa su ne duñu doyal si moom ndax macha allah xam-xam bu rafet bi euh, gëm Serigne bi bëgg ko lool waaye te xam ngeen ni Serigne Diadji Tall si pédagogie bi macha allah alhamdulilah rabbil alamin mu beralaatal ñu jotaay bi ñu fas yéene waxtaane kon maam Cheikh Ibrahima Fall akuk taalibe Serigne Mamour Ndaw Baye Fall maam Cheikh Ibrahima Fall akuk taalibe tey moom lañ dellu siwaat si mbokk yi si Jazbul Murid mm-hmm. di la wax asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Aline Badara aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa anzir ala xalqa wa rasaaya wa jinna wa seytaane wal balaay maa balaayi wa maa amraadi wa wiridatan xaadili amraadi asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñuy topp ci seen télévision Lamp Fall noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sunu yaakar sëriñ Cheikh Sidil muhtar mu yàgg fi lol teur ba lépp lu mu nar ngir liggéeyal ko sëñ touba lépp yàlla na sottee fi loxoom bam nal naal yeneen naal tañ ànd ko ak mom di ko ñaanal bax sëriñ Cheikh Jëmm Fall mi fi wutu mam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom dal ko fa yagal bu baax te wéral ko ba lépp lu mu nar ngir liggéeyal ko mam Cheikh Ibrahima Fall lépp yàlla na sottee fi loxoom di ziar bax ak ñaan ci sëriñ touba yëpp di ziar mboolem cheikh sëriñ touba yëpp di ñaan ni ñi top ci jotay bi yàlla nañ ci dajje ngeureumal mam Cheikh Ibrahima Fall ni nga ko waxee rek euh, tey ñu dalal Serigne Diadji Tall ñu fas yéene waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall aku taalibe mm-hmm. te xam ngeen ne ak taalibe moom Cheikh ci jiitu ñëpp ndax mm-hmm. moom mooy ki ko jàngale ci yoon wi mm-hmm. te ba tey ko roy ci ak taalibe ci moom nga koy royee waaye jamono toll foo xamante ni bi nag delloo si waat Cheikh Ibrahima Fall moo ñuy jariñ maa ngi koy wax léegi rek ne ko fii jamono toll ak situation yi ñu nekk est-ce que du delluwaat ci njàngalam Cheikh Ibrahima mu ñuy dimbali te du ñàkk loolu dana ci indi ay leer incha allah ndax yëf yi jaxasoo na fii ñu toll te itam gis nañ ne ñu bëri dafa mel dañoo gëlëm wala dañoo xamatu fu ñu jëm te nag am na am na foofu bu fa jamono tolluwaan Cheikh Ibrahima moom sëñ Tuubaa yàgg nañu koo joxoñ dama defe ne nag am na ci loolu ci nun la ci nun la waaye yaakaar naa bu ñu duggee ci waxtaan lu bëri dana leer incha allah tey <laughs> ak taalibe ngir dañu réer suñu bàyyi jaaji taal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey mel ne ni ku déglu rek di nga dégg alhamdulilah ci di nga jëriñ alhamdulilah bismillah aousubillahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin mm-hmm. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله على محمد mbokk yi maa ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a jot bopp jullit dina ko nuyu bokki jullitam ziyaare ziyaare gën a jot yooyu taalibe dina ko ziyaare bokki taalibe di nuyoo itam ak ziyaare jiital nag samay nuyoo ak sama ziyaare gannaaw suñ Seydi Muxtaar Mbàkke mi nga xam ne mooy suñ Tuubaa te mat ko sëkk yàlla na fi yàgg maa ngi nuyu Cheikh Abdoul Karim Mbacké ma kaarimal axlaax ñu nga xam ne sunu borom jegeñal na ko ndax modèle day day jege modèle daa war a doon looy gis model bu nuy nettali sax baaxul waaw modèle booy gis la di ko di ko di ko roy te yàlla def na ci moom luy seral xol ci boo ko gisee gis def na ci moom luy daalalum xel boo ko ronoo waaw suñ Tuubaa cautionné na mbiram bu baax a baax a baax. alhamdulilah. waaw yooyu yooyu yëpp ca biir la ne. sax. amin amin amin amin eh, di ziyaare itam eh, waa kër sëñ Moustapha Bassirou Mbacké. waaw seenu nosewu nag. Mm-hmm. ak seenu baax. Mm-hmm. te musaa Moussa Nawel. Mm-hmm. ne ca bopp. mat njiit. lool ba ñum jiite. dégg nga topp ko. isaan ku si le seigne Cheikh Fatma mbake diko ziar. seigne Cheikh aw Balla. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. bu pout bi seigne basporo khan mouride sadikh ba. ñoom ñep rek. ñoom ñoom seigne bi da leen da leen am fum mu leen teg. daaru minam gep nak c'est ça. dama koy citer en exemple. dem rek seigne Mamour waxtane la euh, seigne Abdou Hakim waxtane am solo. di ci jaar soxna seigne mi ngoog daaru minam gep waxtaan yi ñuy waxtaan muy maam Cheikh Ibra ak taalu bi mhm. daaru mi na mat na ci seetu waaw am na ko ci waaw mhm. na ci seetu mhm. ndax Touba dafa bari boroomi cër yoo xam ne da ci am cër yoo xam ne moom moom ku fa ne rek bul ko nattable buñ ne nee diwa toog ci ci ci bangub doomi sëñ Touba xamal ne mbërëngoog mu góor ci loo xam ne maanaam mën na lu ne ñooñu moom sëñ Tuubaa moo cautionné seen biir. ndeysaan li ci des nag njëkkante la. waaw di toog ci bangub sëñ Tuubaa doom yi yooyu bang. Mhm. sëñ bee ko créé yooyu bang itam sëñ Tuubaa moo ko cautionné. bang yooyu da xanaa amul fenn moom. aw ashkuruhu wa xaadalil abdaala. kama kafaanil harba wala si sëñ bi dafa ne am naa bang yooyu. Mhm. ña cay toog ñoo may wutu ñu ne ko nun leen di xàmmee. Mhm. mu ne xeex du leen fa teg. Hmm. ñu ne ko ak nan mu ne werante du leen fa jële waaw <laughs> xam loo xam ne doo xeex ba moom ko mm-hmm. waaye kenn mënut a werante ba jële la fa mm-hmm. mooy mooy bañi sëñ Tuubaa mooy ab yi ko ca toog rek mm-hmm. yow yaay sëñ ci des nag njëkkante la moom njëkkante bi nag moom lu nekk ci biir ah. waaw am na ñu yëg ne njëkkante la nag ñuy njëkkante bu baax am na ñoo xam ne ñu ne njëkkante la moo tax giiruñu moo mm. mm. taalu bi gii ngeen bëgg ñu waxtaane ko mm. mm-hmm. boo doon giir mooy gaa yi ngay fore mm-hmm. ah, mooy gaa yi ngay fore eh, jamaa bi nag dafa jaxasoo ki xeer waaw moo tax moo tax ngay wut gaa jamaa bi mooy sëñ bi mm-hmm. xeer yi mooy àddina waaw il faut nga xam nag ni ngay ni ngay tibbe ak ni ngay tànne mm-hmm. am solo waaw mm-hmm. ah, il faut nga xam ni ngay tibbee ak ni ngay am na nañ di tànn mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy wax jël lépp bu ma demee waaw kenn ku ne am nga sa méthode bu gën a wóor bu lu jeex boo demee tànn moo gën a waaw ndax booy tibbee sax yi ko te sa xol di day mujj sa loxo bu mu non jama ci waaw. Hmm. moo tax. thème bi ngeen indi. am solo. luy mandargaal ak taalibe. waaw ak taalibe. Hmm. pour mu xam nga problème yoonu murit. Euh, li li mu wax li mu wax ne am na problème. Hmm. problème bi yoonu murit am mooy problème définition. nit ñi dañu utiliser baat yu nu xamul lu mu firi te sol sonn ci jéem ko xam. baatu murit baatub ak taalubeeg baatub addiyaag baatub jébbulu mm-hmm. tarbiya yooyu yëpp da ngay gis ku ci ne lëjj ba pare te du xam te boo ko ko laajoon du ko xam mm-hmm. problème définition bu mag lañ am luy solution la solution bi mooy définir at mm-hmm. nit ñi am itte ci jéem a xam lu mu doon luy ak taalibe lan moo di ak taalibe wala ak mooy nit koo xam ne dafa xam lim tànn ci yàlla ab taalu taalibe mooy nit koo xam ne tawxiidu Cheikh Mat Bamba bi moo ko ñor tawxiid ndax Sëñ Tuubaa léppam tawxiid la mm-hmm. kes biya tawxiidun mm-hmm. wa matxun li nabi mm-hmm. sama métier mooy tawxiid foo ma seen ci laa ne wa matxun li nabi ak tagg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam maanaam du caagin buy bind rek lay def tawxiid wala buy bind xasida lay tagg yonent bi déedéet Sëñ Tuubaa bu dee naan ab kaas yiw gi mu koy naane ak rafet geeg silwiise ga mm-hmm. ak kaas ba muy tànn ngir ngir naan kafe mm-hmm. lépp da cay wane yonent bi mm-hmm. xam nga li ma la kon lépp lu muy def jëlinu xalimaam ak solinu dàllam aw daw doxiinam ak lépp lum ci mën a doon natt na ci mbébum yonent bi ak la nuróo kuy tuddoo yonent bi sëñ Tuubaa amul lenn lu mu neenal hmm. lépp lu mu def noonu mu taggee yonent bi rek moom noonu la mel xam nga yonent bi sëñ Tuubaa da ko jàppe ni ab seetu mm-hmm. ab seetu la rek bu bu rafet boo xam ne day refléter image yàlla ak i mayam mm-hmm. Cheikh Ahmadou nag xër gi mm-hmm. dafa tax moom mu dem ba jege seetu bi di joxoñ yonent bi moom gis na yonent bi mais yow mi ñëw ci wet gi di xool kii taxaw ci kanam seetu bi kan lay joxoñ koy gis kii joxoñ seetu bi ngay gis moo tax Cheikh Ahmadou Bamba li muy wax ci yonent bi lépp mi ngi ci moom parce que mooy image bi ne ci seetu bi boo ñëwee ci ne kii kan lay joxoñ mhm. doo gis kenn yow sëñ bi ngay gis muy delsi mhm. moo tax euh, sëñ Tuubaa dafa tànn yàlla foofu nag la taalibe yi war a war a war a delsi Cheikh mhm. lépp da tànn yàlla tànnut leneen tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa ci biir tànnu yàlla am ko tànnut leneen loolu mooy culture am mooy civilisation mooy diineem xam nga léegi tànnuk yàlla tànnuk yàlla euh, ñu bari ci àddina bi fi mu ne bëgg nañ sëñ sëñ Tuubaa ñu ngi koy wuyoo ndax vainqueur la te nit ñi vainqueur rek lañ bëgg bëgguñu koy daanu te sëñ Tuubaa du daanu mm-hmm. da nga falaahi bi fadlillaahi fii lawhihi jarra waaw bi xayri mihail doona makkin wala xaw fii mhm. boo demee lawul ma foos mhm. xoolal Sëñ Tuubaa ni mu scientifique nee na am na ay écran digital yu fa ne <laughs> écran digital mi ngi soog a xew sëñ bi mhm. xam na ko bu yàgg eh, nee boo demee di nga fa gis mbind muy daw xam nga ne mbind muy daw ci écran bu yàggul lan ko xam ñun bu yàgg la ko sëñ bi xam moom fii law yii jarraa la wax ñu ne ko luy daw foofu man mbind day daw foofa mu ne falaa yi sama réussite man sama boo demee mbind ma fay daw ci ay écran digital mbind may daw. Hmm. sëñ Bamba réussir na. Hmm. sëñ Bamba réussir na ñu ne ko mu ne bi xayri miha in te moom mbind du far mukk amul lu koy gome. Hmm. doona makkirin intimidation yi du tax mbind ma taxaw. ñu ne kii kat dañ koo tiital moo tax mbind mi taxaw. wala xaw fii ragal loo ko it du tax. <laughs> complot du ko arrêté intimidation du ko du ko far. te kenn mënu koo far. kon ku ànd ak moom faaw nga am fit de. il tànn yàlla xam nga yàlla liy dend ak moom boo waree tànn moo bari te te lu te nuuru lu baax te yàlla mënut a ànd hmm. moom booy tànn dafa bari te mën koo nuru te nuru lu dagan te nuru lu baax yu dagan yu baax yooyu yëpp sëñ Tuubaa faalewu ko bëggu ko da koy daq yàlla rek la tànn ak taalibe bi mooy tànn yàlla boo gisee Cheikh Ibra Fall ñëw tey Cheikh Ahmadou def ko. mu mu muy cëslaayu yoonu murit. Cheikh Ibra euh, yoon wi ci boppam la représenté. yoon wi. xam nga sëñ tubaak ak yoon wi dañoo dañoo bokk. nit dina bëgg sëñ bi. mën naa góor sax ba ne gëm na ko. yombut nag waaye nan ko ko nungul. waaw nit dina bëgg naa sëñ bi gëm naa ko. dégg nga mm. waaye gëmut yoonu sëñ Tuubaa. fekk sëñ Tuubaa. maanaam am nattoom ak peeseem mu ngi lay peese ci nan nga gëmee aw yoonam gëm sëñ bi ak gëm yoonam fi mu ne gëm yoonu sëñ moo gën a jafe ci àddina bi ndax yoon wi ñi ci ne dañoo matadi te boo defee nag yoon wi dafa mat ah kay yoon wi mat na ñi bokk ci yoon wi te di ko dundal ñoo ñoo manqué il faut nga nag mat ji ak ñi jéem a mat ci yoon wi ba muy sëñ Abdou Karim euh, dégg sëñ Tuubaa lool. sëñ Abdou Karim dafa am une méthode inclusive. day dugal waaye du génne. waaw parce que parce que xam na ne ki méthode dugal. Mm-hmm. ki ki soxla ndimbal. dégg nga li ma wax. kenn ko beddi déedéet boo ko fekkee ci yoon wi soxlaatu la. déedéet mm-hmm. mm-hmm. siraatal mustaqim bu fa seen ni kenn di ko jéem a waar. amul ci yow soxla kii am ci yow soxla mooy ki ne ci mbooy gi. te xamul nu muy see ci yoon wi. kooku nooy nekk ci yoon wi di ko woo dangay dem ca mbooy ga bu dee am nga capacité hmm. ca mbooy ga ngay dem hmm. di manœuvrer ak moom di ko nax ba indi ko ci yoon wi ne ko fii la kon sëriñ faw mu wàcc terrain bi il faut mu wàcc ci terrain bi hmm. terrain bi nag pour nga wàcc ci il faut sëñ Tuubaa jaral la waaw dafa am lu lu lu tubaab yi indi occidentaux yi moo ne américain dream taalibe yu bari nak dañu épouser American dream ba paré bëgg and ak seigne touba hmm American dream moy moy nooseur rek. waaw ah, le rêve américain. <laughs> le rêve occidental sax ngay wax nak Amérique. mu gën a yaatu ñëpp a ci bokk. <laughs> xam nga lima wax. nooseur rek bëgg bu rafet ñaari place mok soxnam di defari kër ay piscine yoy do affaire hmm déedéet mourid amul temps paccax paccax ci ay ay piscine. talibé ko waral. dafa am yo xone bu ko roy. Hmm. Hmm. dégg nga li ma dox te individualisme bi nga xam ne itam American dream da koo am nga xam ne boo ñàkkee bu doon murit cest lu ne nga yéene ko waaye boo tàmbalee réussir daal di beru man xam naa ñu bari ñoo xam ne ba nekkee étudiant bu bu ngeen dajee ci daayir yi wala ngeen ne ci fenn ay saadix la ñuy doon. jàmbaare lool ay yéene yoo xam ne da ngay waaru. waaye da ngay jikki ba caag rek ñu incorporé leen ci wàllu liggéey yi. ñu doon beneen façon nit. beneen nit daal la doon waaw ndax doo doo mën na ne sax ay murit lañu parce que li ñu yéene seen bopp dafa bokkut ak li ñu yéene sëñ bi te murit dëgg mooy koo xam ne li mu yéene sëñ bi day labal li mu yéene loolu mooy murit pire moom ki nga xam ne li yéene sëñ tubaa day labal ndax sëñ tubaa mboolem système yi géré nit da cee bokk dafa dugg ci biiram waaye système yi géré nit yëpp bi ci gën mooy nit ki annulé bopam ngir li mbolo mi bok mm-hmm. na mbolo mi ci lay amé de nga wax pour gérer individu mm-hmm. mais individu buñ dee xëccu ak mbolo mi patrimoine bi mm-hmm. de nga wax li mbolo mi bok du am doole kon du mëna satisfaire ben ben bi xam li mo Cheikh Mat Bamba non la mel bo gisé Cheikh Mat Bamba tay khalisou mourid mo defat infrastructure ba waaw khalif khalif mourid moy lan moy li khalif khalifa mhm. ki togal seigne Touba dégg li ma wax ba yoonu murit doone yoonu mourid ba legui dépendre ñu ci kenn waaw dégg li ma wax mhm. parce que mourid yépp fay jox koka koka it di liggéeyal ñëpp mhm. yoonu mourid ni rek la doxé waaw juma ji seigne mourou sa nu ko défa rek waaw ah taalu béy rek ak cheikh si ñuy bay ay tool yu reuy duñ ci ñam dara duñ ci xoti seen sër lepp yob yóbbu lepp andi bon yi ba sëñ mourou sa am xam ban capacité la am annuellement pour tabax jumaa ji hmm ngi ko ci magi mourid yi murit ñaata lan mën bay hmm mbolo mi leen sëñ Touba jox mbolo mom du hmm mbolo mom ngir am ndax ñom dañu kenn ku ne da nga wéet liggéeyal sëñ bi ba sëñ bi doylo sa liggéey agréé ko daal di xam ne ku la jox doole nga liggéey ñu boole la mbolo loloy loolooy seex momu nak du pour don nooseur seex pour liggéeyal sëñ Tuubaa la nag maanaam liggéey bi mi ngi tàmbalee ci bi nga seexee maa ngi tuub mais kon ceex gi soppi ko na léegi de moo tax murit gi soppi ko waaw lu waral loolu sëñ jaay yi li ma la ne nit ñi seen bopp da leen a gënal sëñ bi sëñ Alioune na day wax wax bu doy waar day wax ne mu yi yéene wuñ sëñ Tuubaa dara lu ah li ma xam daal mooy mhm. bu bu fekkee ne erreur la mhm. nañ ko rectifier kenn ku nekk mhm. yaa war a toog ci sam néeg summiku ba set tëj mhm. sam néeg mhm. bu la dara gàllankoor mhm. nga posé sa bopp question bii may bëgg a wax bu ñëpp meloon ni man yoonu suñ bamba nu muy mm. Mm. bu ñëpp meloon ni man bu dee mbel-mbel nga dëkkee mm. bu ñëpp meloon ni coow li dina rey nit ñi mm-hmm. ci yoonu suñ bi boo dee jëfkat bu ñëpp meloon ni yow yoonu sëñ bi du dox day naaw. day naaw mhm. dégg li ma wax boo dee werantekat kat. Mhm. dégg li ma wax bu ñëpp meloon ni yow yoon yu ci werante lay dëkk. Mhm. boo dee kuy dégg ndigal am kilifa bu ñëpp meloon ni yow yoon yu moo fi ëpp discipline. te yooyu moo fi manqué léegi. léegi ñëpp bëgg a siiw. kon de xanaa taalibe raaf na ndax li nga wax de xanaa mooy akuk taalibe. loolu bu dañee si taalibe moom du ra du raaf moom taalibe. Mm. newoon naa la sànq. Mhm. da cee am loo xam ne ak mhm. jagle la. Mhm. ku dem ci sëñ sii dem sëñ blaat wala nga dem ci si Ahmadou Maxtaar. ma nekk Daaru Xuddoos. wala nga demoon tey ci sëñ Cheikh Dar Rahman wala sëñ Dam Atta. jërul lim ñooñu xam nga leen. xam nga ne ñooñu ak taalu bi fa la dëppee. ndax coow li muy bari bari Tuuba ak internet bi. ñooñu da déggoo la ñu wax. déedéet duñu wax. te kenn ku ci ne yaa ngi jiite mbooloo moo xam ne. Mm. su nit war na saña wax nga wax sañ wax tuuti. waaw tuuti sax. Mm-hmm. waaye ñooñu ñëpp xam nañ ne kenn rek am kaddu Touba comme ni ko sëñ Abdou Karim di waxee. waaw mooy kan. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. yàlla na fi kooku kooku sañ wax de. kooku sunu sag. Mm-hmm. kooku nag. Mm-hmm. képp koy waxandoo ak moom. mooy amoo xam-xam. Mm. mais nit ñi dañuy jàng nii ay jàng yu yem waaye nekkuñu au diapason mm-hmm. de la connaissance mm-hmm. rayal ndax mm-hmm. xamuñu xam-xam yu bees yi te yenn xam-xam yi ñuy am dafa màggat àddina da ko mm. waaw léegi nag bu fekkee ne yow loolu moo la dal te da ngaa mënoo giim da bëgg a feeñ par force il ngay inventer ak wax yu ñorul taalu bi day noppi taalu bi day giim taalu bi day am kilifa taalu bi day dégg ndigal Mhm. am na nag ci yoon wi ku ku bëgg a gis ñooñu ñu ngi fi. Mhm. bul xool nag ñii di feeñ nii bari scandale dégg nga ñu leen di waxtaanee ci saal yeeg yu mel noonu nga defe ne yoon wi foofu la toll déedéet. Mhm. nga généraliser. bul généraliser de ñooñu dañoo néew de. ponkal yaa ngi Tuubaa. noppee tax xamoo leen. fees de boor ci ay mbir yoo xam ne. mën nañoo tukkal àddina. nga Tuubaa laa la wax. mais. bul yaakaar ne ñi ngay dégg nii ñuy wax rek ñu leen di waxtaanee ci salon yi. Mhm. ñooñu ñoo déedéet ñooñu ñooñu bariwuñu. ñu bari nag dañoo comme ñoo ñooy feeñ. net bi ne ci. Mhm. dañu yaakaar ne lépp yoon wi noonu. yëf seen loxo déedéet. déedéet dara déedéet déedéet. Mhm. loolu erreur bu rëyee rëy la bu ko benn taalibe jàpp. yoon bi tey la gën a am doole fa ko suñ tubaa tegoon tey la gën a ne foofa. ñu wërsëg bi yokkoo nga di ci teg sa bët. li yokk wërsëg yi moo yokk la ca des. dëgg la <laughs> wa zaahiri wa baatini tawfaqa. sëñ Tuubaa nee na sama sama saahir foo ko séenee bu la sama baatin réer. ñoo nuuroo ñoo tolloo. sama saahir nu toll rek mën na laa jàngal sama baatin. sama baatin it bu dee ca nga njëkk yem loo ca yëg rek xamal ne sama saahir moom toll na noonu. te tey sama tay bu nekk gàcceel na sama démb. looloo tax nga war a nga war a xam ne euh, taalibe gi. mi ngi si. bu bëri mais nag jàpp na yaa ngi ci te nekkoo ci mooy danger. Hmm, nan la ñuy xamee ni nit ki mu ngi ci taali bi. ni nga koy xamee. Hmm. mooy ñàkk wóolu sa bopp. boo wóoluwul sa bopp doo bari wax. Hmm. dégg nga li ma la boo wóoluwul sa bopp. doo bari ñàkk wóolu sa bopp ñàkk wóolu ndax taarub sëñ tubaab bi dalaa war a wan sab ñaawaay yow. matuk Cheikh Mat Bamba da taas ab seetu la dalaa war a wan yow sa manki dégg nga li ma wax mm-hmm. léppi sëñ Tuubaa rek da nga cee war a gis sa bopp yow mm-hmm. ni ko ci gisee mooy xam nga ne yow demagoo fenn sëñ bi rek nga yaakaar mm-hmm. te sa saa soo jàppee ci lenn lu mën a doon ba loola wàññi sa yaakaar ci sëñ Tuubaa dugg nga ci mball koo xam ne dara jël te pourtant bëri fi ñoo xam ne dañuy critiquer sax waaye sëriñ bi. déedéet ñu nekkuñu ci dëgg. boo waxee boo boo waxee ñu ne sëñ bi daa war a jàngi. déedéet ñooñu nekk ñu nekkuñu ci dëgg. te ma Diop paxa ba ko sëñ ko firil ma in raamahil man mu ne ko mbàkki mënuma sëriñ bi ne ko dégg naa ne fóore nga. Mm. daf ko ne ba ma la gisee laa doon tudd dara ndax yow fóore àddina xam nga sëñ Tuubaa. Mm. sëñ Tuubaa. Mm-hmm. moom moom rek moo fi ne. Mm-hmm. ku ko yaakaar rek dara nga mm-hmm. képp koo xam ne rek yaakaar nga ko boole kook dara mhm. sëñ Tuubaa bàyyi na la ak dara joojee mhm. ngeen ànd bu ngeen doon dara sëñ Tuubaa da koy yaakaar wóolu ko ndax moom lu su koy yaakaaree wóolu ko dafa ne ci moom mhm. ba pare mu waxal ko bopp jëfit ñu gis ko mu bàyyi fi ñoo xam ne kenn mënu leen yilif kenn mënu leen a façonné ku dul Cheikh Mat Bamba ndax amuñu feneen amuñu fenen ñooñu nak yow ci ngay sukkandiku nak xamne ne li nga bëgg sëñ bi rek ko yor nga fassiyene cultiver nak bëgg sëñ tuba bëgg sëriñ tuba bëgg sëñ tuba nak du doon lay wax ay ma bëgg sëñ tuba ak sëñ fallu mom ak déedéet ni yoxu ci kaw ni rek non non bëgg sëñ tuba moy bis bu ne ngay tekkale sa bëgg-bëgg ak bëgg-bëggu sëñ bi ba xam bëgg-bëggu cheikh mat bamba lan la la jaral yow bul ko ragala xam xam ko de nga lim nak ndax ci nga meuna effacer yow say bëgg-bëgg yow ci nga meuna annuler sa bop xam nga murit mi moy kuy dundu de nga lim wax am ay bëgg-bëgg am ay façon am yu muy tan waye bu bu màgg ci murit gi yam don tan day far yam don bëgg di far yam don tamu di far ye sëñ bi bëgg tamu ko tan ko di di wu boo boo dund loolu tous les jours le Cheikh de Fall waxoon Sëñ Tuubaa ne ko defal ma Mbàkke bis bu ne ma di la gën a bëgg loolu lay firi bis bu ne ma di la gën a bëgg da dafa dem ba bëgg ko ba ba ba ba ba ni mu yëgee Sëñ Tuubaa moom Cheikh de Fall maanaam kenn yëggut foofu ci diggante ak yàlla kenn te la sëñ bi da ko waxoon mm-hmm. da ko teg na ma foo xam ne tax na mu tulli ko ci yàlla foofu liggéeyal yàlla du fa yóbbu góor fa yóbbu góor foofu da sori na sañ jaaj waaw mhm. xam nga tey gay dëgg ñoloor waaw sakoor mhm. euh, Cheikh Cheikh Fall mhm. moom xisa bu doy bi ne ma Ibnu ma ne ko Mbàkke mu ne ma demal woon ma Ibra Fall <laughs> sëñ Ibnu nee ma samp sama xel <laughs> nee li tax ma samp sama xel nag di leen ko wax. Hmm. mooy njaareem li muy yaatu yaatu ak ñafa ne ñëpp lu ñu am am daraja. Hmm. dara indiwu leen njaareem lu dul dégg ndigalal sëñ tubaab ba def ko. Hmm. ñëpp moom lañ fay xaar. nee na keroog for naa ndigal loolu. ndax dama woon ma Ibra Faal rek sëñ bi dana ci defar nit. nee na ma daw. nee na la ca dolli ko. mooy Baye Cheikh Ibra boo fa demee. boo ko nee sëñ Bamba bala ngaa wax li nga yónni hmm. danañ la neexal ba yow at mooma dootoo ñàkk hmm. Hmm. nee na yee tax ma ma daw nee na bi ma yëgsee rek Cheikh Ibra Fall boo jógee ci sëñ bi rek bu lay xool di ko xam nee na di sukk ci kanamam ne ko bàyyi bàyyi Cheikh sëñ bee ma yónni nee na Cheikh Ibra Fall laaju ko lu mu wax de dana gees ne ana yaaram bay mu ne ko Fall mun ne ko waaye neexal leen im na waay neena ñu tàmbali li ma xëpp xaalis beeg série yeeg ne lu waay la da jot rek sànni ma ko nee na ba ba jitaay bi dal mm-hmm. nee na Cheikh ne ma im nga ne lan ko sëñ Bàmba de ma ne im dama roolu Ibra Fall daal ne ana Mbay mu ne ko Fall mu ne ko jottil mag satala mm-hmm. nee na sëñ Yaram Mbay jox ko satala gi nee na nee na mm-hmm. Cheikh jàpp ba noppi daal di jóg taxaw daal di ko yaaram mbay mun ne ko faal mun ne ko dégg naa kàddu goo xam ne saa su tàbbee ci nopp góor daa war a yeesal am njàpp la dëggal baatu sëñ Bamba bi li effet bi mu am ci moom mu yeesal ci njàppam mu yeesal ci njàppam nee na daal di jóg mbooloo mi topp ko ñu jëm kër gu mag hmm. jógee kër seex nee na bu ñu toogee ñu doxee as ndiir rek hmm. kaay wuy sëñ Bamba ji defaat ko aw mar mu bëggaat ko ci xol bi bëgg koo déggaat ne waaw ana hymne nee na fekk na boobu man bàyyi naa mag ñi jiitu ma ànd ak ñu ma maaseel nee na bi ma woon ñu hymne hymne nee na ma daw ba tolluwaat ak moom da di Cheikh Ibra ne ma waaw hymne nga ne lan ne na ko sëñ Bamba de ma woon hymne dama loolu ma Ibra Fall nee na Cheikh Ibra Fall yeggaat suuf daal ne ko yaaram mbay mu ne ko Fall mu ne ko jottali mag satala nee na sa yaaram mbay indiwaat satala gi Cheikh Ibra ba set dal di jóg taxaw dal gu yaaram bay mun ne ko faal mun ne ko dégg naa kàddu goo xam ne saa su tàbbee ci nopp góor mun naa mun ne ko daa war a yeesal am jàpp nee na ñu doxati bu nu doxatee ba as ndiir rek Cheikh Fall dënn bi nammaat kaay wu sëñ Bàmba ji rek mu ne ana im na suñ im na nee na man mujj na du ma ci demante ca ginnaaw damay nekk ci wet gi rek bu ne ana im na rek ma yëg si nee na bu ma im na nga ne lan ma ne ko sëñ Bamba de ma ma ne hymne dama loolu mu Ibra suuf laajaat satala yi daal di jàppaat nee na nee njàpp ñu mujj a jàpp ñu soog a yegg ci na nee na bi ma ne hymne nga ne lan ma ne ko sëñ Bamba de Fall moo ma ne hymne dama loolu ma mm-hmm. Ibra Fall mm-hmm. bi mu yeggee suuf ba jàpp ba jóg daf na ko yaaram mbay mu ne am na ko baatub sëñ bamba ci noppu góor am njàpp tuut na ci sangu farata moo ci jàpp ndax bànneex daanaa fi mu teg seen hmm? waaw xam nga kooku dafa façonné léppam ci hmm. xoola koo xam ne sa façon li li ñuy wax euh, statis euh, euh, sa melokaanu jëmm hmm. sa style dundin ci bëgg sëñ Tuubaa ak liggéeyal ko ci nga ko façonné sa yére yi ngay sol yére yu mën a liggéey saa su la dégg la doo sol yeneen yére yoo xam ne liggéey bu jotee da koy summi ji mm-hmm. di sol beneen dégg nga li ma wax kawar gi nga gi nga yor mm-hmm. xam nga mas na ko wax mm-hmm. ndax sëñ mas nay laal kawaru Cheikh Ibra Fall gi bu Cheikh Ibra di jooy Cheikh Ibra nee na sama kawar gii de doom sàggan taxut ma saalañ sàggan mooy bañ sa wattu rek bu mu saalañ mu ne damaa xam ne mm. sëñ Bamba dina bi dina ne bis yenu leen mm-hmm. te yenu leen ni sëñ Bamba wutib teeñ du fi xej nee na moo tax ma bàyyi sama kawar gii mu sëq waaye sàggan taxut ma saalañ ndeysaan mm. waaw da ngay xoolal nga xam daa programme wala ci jëmmam ci jëmmam lépp lu Sëñ Tuubaa santaane da dundam dundam dundam dafa pare ci ndigal dafa dundam dafa épousé ndigalal Sëñ Tuubaa mm. xam nga li ma la mm. xam xam nga kooku loolu mooy murit murit du yii xew murit mod mod yii nga xam dafa éphémère xam nga li ma la wax mm-hmm. bu xewee tey fii weer mu xew yi nga xam ne néolibéralisme mooy créer ay ay ay forme ak i pour nit ñi jënd Kamu nga li ma la wax américains yi ñooy def yooyu ak européens yi. xam nga la am na nu ñuy yàq xelum nit ñi. ba fu mu di jënd. ndax comme que yaa ngi jënd ci kaw xew na xewi na. luñ ne xew na da ngay gaawantu jënd ko buñ ne na nga bàyyi kon ba nga ca jënd amatul njëriñ. loolu day daal di jur ay mbalit yo xam ne yu baax rek a ci ne. xam nga li ma la wax loolu ak yàq la. bu fekkee doon nag murid dañu seen comme ci. culture sëñ Touba. ak nu ñuy ànd ak sëñ Touba. voilà kon ñun duñ bokk ci feebar boobu nga xam ne mooy consumisme. di consommer di consommer. te xamoo li ngay consommer lan la. yàgg naa wane ak yoon de. ah. Cheikh Ibrahima yàgg naa wane ak yoon ma ne. yoon wi du xew yi. mais est-ce que du est yoon wi mu wane. di yàggug taalibe ngir ñu mën a jëriñu Serigne Touba dëggantaan. Hmm. est-ce que du loolu si la ñenn ñi wàcc xëy na ba tax ndax suñu maamu soo hmm. fàttalikoo Serigne Touba. Hmm. moom ni mu fonkeek taalibe ak ni mu ko bëggee. benn firnde rek. tànnal na ko Serigne Momar Talla Fall. waaw ah oui akuk taalibe sax balaa sëñ Mor dama ñëw sëñ Modou Moustapha Fall. Cheikh Ibrahima daf ko ne newoon. Modou Moustapha mu ne ko Fall mu ne ko fu ngeen daje waa kër sëñ fu ngeen dajee daje njabootu sëñ Bamba lu war a takk ci ñoom na leen takk yéen ngeen yóbbu tuumu ñoom ñu set loolu firnde li mooy keroog ba gouverneur Vertor wootee ca Ndar te Cheikh Mour Moussa Mbacke ànd sëñ Mour Moussa Fall <laughs> gouverneur di joxe loxo te mu jox loxo ci kilifa ya fa teewul jabaram jox la loxo nga jël bàyyi Ibrahima Mbodj nee na bi mu egsee ci sëñ Mour Moussa Mbacke gouverneur bi mu ne jëy sëñ mu Moussa sëñ Mour saa jox ko loxo ndaw si na jëy loxo sëñ Mour Moussa Mbacke Cheikh Mour Moussa Fall lii problème am moom xam na la sëñ Moustapha Fall du jox ki loxo. te du ko ñàkk sëñ Moustapha du ko jox loxo. te du ko ñàkk tey bi bi ndaw si rek sëñ Moudou Moustapha Fall moo ko nuyu. kii di nuyu jigéen. jàllale xam nga loolu loolu sëñ jaaji dafa tumburanke léegi. te du ñàkk di nga dikk. Mhm. nan la ñuy def ba dellu si waat loolu démb li nga xam ne moom la seeroon. loolu loolu. Mm. dafa nekkut sasu mbooloo. Mm-hmm. loolu sasu ku ne la ci sa bopp. xam nga euh, mouridisme collectivité bi. Mm-hmm. ak individualité bi du benn hmm. mm-hmm. mbooloo la nu ñooy bokk di màggal yi li tax murid yi neexuñoo xàmmee mm-hmm. ñëppay màggal yi ñëpp mën a fi tasu loolu murid yëpp ko man waaw waaye bëgg sëñ tubaa nag ak wormaal ko nag ak wekk ko loolu loolu sasu nit la xam nga li ma la wax loolu moom da koy sepp ci mbooloo mi kooku da nga koy sepp ci mbooloo mi kooku kenn ku ne ak fi nga teg sëñ tubaa kenn ku ne ak li la sëñ tubaa jaral ndax jomb ngir sëñ tubaa ak am jom ngir sëñ tubaa lool ci la murit di dox jom naa nàngam ngir Cheikh Mat Bamba mhm. gis nga waa ji ma nekkal mhm. ponkal la mhm. wallaay maa la ko wax man yow xam nga ne euh, cuune du ma bondi waaw mais sëñ bu karim ponkal ndax xam naa ci moom genn jomb goo xam ne xam ci moom genn jom goo xam ne xam nga li ma li gën a am solo te ma xam ko ci moom nga xam ne loolu doy na mooy ñaari yii moom dama leen a xam moom. muy pouvoir ak xaalis. xam naa ne moom gis naa ñoo xam ne amul ba ñu amul pouvoir amuñu xaalis nit ñu amoon maanaa lañu. biñ tàmbalee am xaalis tàmbalee am pouvoir daf leen pervertir amatuñu maanaa. ñu ñàkk maanaa. waaw amatuñu maanaa. Mhm. xam nga li la moo tax man am maanaa nit maa ngi koy natt ci su ko pouvoir jegee ak ak xaalis. Mhm. moom dafa dafa koo xam ne yooyu mënaluñ ko tus ndax fi ne kër ga la muy rafet rafet ak moom li muy góor a yu góor yu mën a solu mm-hmm. daf yu mel noonu mm-hmm. wallaay boo fa yendoon vingt quatre heures mm-hmm. authenticité murit lay dund laa la loolu xam nañ ci dara lu dégg dégg lu tubaab dama la ko gën a dégg de du wax wax lu sax waxinu taax te ay maam moom lébu lañu fii fii fii moo fi gën a dëkk ndakaaru ñëpp dëgg la dégg nga li ma wax. Mhm. waxiinu bawal bu foor wa. lay wax. Mhm. ba pare day wax ay baat recherché da lay jàngalaale wolof. Mhm. ndax léeg-léeg mu ndax xam ngeen nangam. yooyu yëpp moo lay wan authenticité bi nekk ci nit. authenticité doonut lu meroo ak modernisme. Cheikh Ibrahima Gisi moom a tax. mooy li ma la xam nga taalube gi dama leen wax sànq ne la. moo tax ku mel ni moom. Mm-hmm. ak ñi mel ni ñoom. Mm-hmm. est-ce que jotul ñu épouser waat dellu si waat si euh, li fi Cheikh Ibra indi. Mm-hmm. ñoom ñu ci ñoom ñu ngi ndax ndax dafa mel ni Cheikh Ibra Serigne Touba Cheikh Ibra la leen joxoñ. xam nga nee naa la sànq. Cheikh mooy yoonu murit. yoon wi. waaw Cheikh mooy yoon wi. xam nga li ma Mat Bamba nag mooy esprit bi. esprit bi de Cheikh bi bi muy ànd sëñ bi da ko ne sëñ Bamba waxal nit ñi dëgg ma wan leen dëgg. ci loolu la yoon wi tegu. ci la yoon wu tegu. wax leen dëgg ma wan leen dëgg. théorie pratique. Cheikh Ibra Fall li sëñ Tuubaa wax lépp te bëgg ko Cheikh Ibra Fall pratiqué na ko. Mhm. yépp la pratiqué. Cheikh la gën a dégg diine képp kuy dégg diine. mais ñi defe na nag dafa tumurànkeel diine nag. déedéet ñooñu dañoo xamul diine. Mhm. xam nga bi Cheikh Ibra demee Ndar. Mhm. bokk na fa ci ab julli. boo ko sëñ Tuubaa yebalee Ndar mu dem kër sëñ As Kamara. bu masaan dem di di di kaajeey di def yooyu mu daan def. Mhm. dégg li ma wax. bu dëppee am na jàkk jot bu fa bu fa fekkee ñu julli day julli. Mhm. Mhm. Cheikh Fall julli na fa julli tàkkusaan goo xam ne. Euh, da imaam bi day julli ba yegg ci ñaareelu ràkka bi. bi mu rukkoon. Cheikh génn ci julli day jàngale nag. no bobu sëñ tuba yebalu ko fenen yebalu ko njemi yebalu hmm. ko fen ndar la ko yebal capital de l'afrique occidentale française bobu sëñ tuba limuy muy jaay hmm. di nga ca capital bu la bëgg ñu jaay ko fa bu sëñ tuba wonu won Cheikh Rufal hmm. njemi la ko yebal waye ndar da nga xamne fa la tuba ba dekk gouverneur nefa fa di nga la staff gouverneur nefa fa di fa gane si commerçant yu mag ya di fa gagner com compagnie yu commerce yu mag yi ne fa. dégg nga li lépp nekk muy vitrine Afrique. Hmm, fu naqari woon de. fo foofu sëñ Touba xamoon ne Cheikh Ibra Fall bu fa demee. Hmm. ŋaññu yoonu murit lay jur du ko fa yebal. kon Cheikh Ibra hmm. sëñ Touba ko fa yebal xam nga sëñ bi ku mu ku mu yéwee rek. da lay wax dellul fa nga jóge woon. Cheikh Ibra sëñ bi ko ne demal ndar. loolu mooy différence bi. ba mu demee ndar nag. boo gisee histoire am ndar xóot. ab jaxasoom ndarit bari parce que boobu moom dafa am mission wu léegi soog a génn te fekku fi lu bon xam nga Cheikh Cheikh Sëñ Tuubaa fekku fi réew yi réewum yéefar ma leen di tuubal ñu ñu ñu doon ay jullit la fi fekk dégg nga mu leen mu koy corriger pas-pas yi la doon corriger Sëñ Tuubaa mission ma gën a garaaw ci ko doon ba pare demul ci yéew fa dugal benn diine déedéet daa fekk diine ji ne fi Mhm. mais pas-pas yi la doon changé. si yaa ngi dégg ma wax. da mhm. nga xam loolu soo ko defee Cheikh Fall bi mu demee. Mhm. bi mu bi mu génnee ci julli yi xam naa bi ñoom ñoom yàkkamti nañoo pare ñoom it. ba weranteeg moom. xam nga daaw ñoo xam ne dañu bëgg affaire yu werante yooyu. <laughs> xam nga la du sabab waaw bañ biñ sëlmalee rek. xam nga taayee sax kii tasab sax defuñu. lan loolu doolu wutu ko ah waaye sëñ bi yow ni nga def nangam ak nangam. mu ne tekk. ndax moom moom dafay day jàngale. Mhm. dana imaam bi de bi mu kàbbaree yëg naa yàlla teew yëg naa yonent bi teew yëg naa suñ bàmba sama sang ba teew. nee <laughs> mhm. na waaye bi mu bi mu bi mu yeggee ci rukkoon nag. Mhm. moom yëgut yàlla mi teew yëgut yonent bi sallallahu alayhi yëgut sama sang bi. xelam mi ci xaram yi réer def. <laughs> yàlla day génn woon. <laughs> yonent bi génn loolu sax nit ñi mënuñu koo xam. ndax loolu moom moo ko wax. imam bi dong nga ko mën a xam. Mhm. dégg moo tax nit ñi sax au début xaw nañ koo bëccingal ne ko ah loolu daal yooyu daal mënuñu koo xam. Mhm. imaam bi ne yéen a ko mënta xam kat waaye man mi samay xar réer. xam naa te sama xel sama xel xelit dem ci sama xar yu réer déglu leen ko. xam na li xew moom. kii de bu waxee fi sama xar yi ne. Mhm. ma jébul ci moom. c'est vrai que Cheikh Rofal nee na moom bu julli woon rek te bàyyi boppam ak yàlla. dina yàlla dina ko xamal ne ko xar yi réerul mu ngi ci xur sàngam. suñu daw dàqi xar yee indi leen nit ñi tàmbalee jébbulu foofu nag. soo tax naa ilimaanu yombul moom. foofu nag. Hmm. am na ku ne. Hmm. ah yow day yaaram lii bettuñu ci yow ndax naka jekk boo fi masaan jaar boo demee. Hmm. danañ la jëw. sa yar bu mat ak sa jikko ju rafet. dana am ñu fi daan wax ne kii. wax dëgg yàlla am na cër. ndax rasulullah sallallahu alayhi wa rek la ñuy fàttali. sallallahu alayhi wa sallam la ilaha waaye nag am na ñeneen ñu fi daan wax leneen nag hmm. daal dañuy wax ne ku baax nga waaye dangaa dangaa dangaa dangaa dangaa fonk diine Cheikh Fall ne leen ah wax ngeen loolu ñu ne waaw mu ne ah fonk ma diine ñu ne waaw mu ne wax ngeen dëgg hmm. ah doom fonk ma diine waaye diine moom fonk na ma la hmm. ne ndax bu mu juree jox diine su ma xamee wax diine lu ma am jox diine <laughs> daal daal ah? bu ma fonkul diine yi diine diine fonk na ma daal ne leen xam nga Cheikh Fall mën mhm. a jàngale gi li ma la doon wax sànq mhm. ci sëñ Abdou Karim ne la ki am capacité mën a dem ca mbooy ga mhm. génne fa ñu sànku kooku mooy liggéeyal diine waaye nekk ci yoon wi ñu ne ci yoon wi dem <laughs> nga leen di waar ak gàllankoor sax léeg-léeg loolu du defar Mm-hmm. defar mooy dem cee ña yàqu nga indi leen defar leen ñuy dem. te gars yi foo leen gis dañuy ñëw ci leen di ci yokk mm-hmm. werante waaw werante mm-hmm. xam nga Cheikh Ibra Fall. da leen a wax ne leen. yoon woo gis day doom. cib dëkk la jëm. yoon woo gis. yoon woo gis. cib dëkk loolu nag kuy dund ci àddina ku ne bu xamut loolu rek xamagul dara parce àddina. ñi raw ñëpp mooy ñi am capacité def ay choix am na ñoo xam ne dund nañ ba faatu mosuñu choisir dara mhm. dañ leen di choisir rek am na ñoo xam ne ils subissent la vie mhm. ils ne vivent pas la vie mhm. lu xew ci ñoom daa daanu ci seen kaw xewee fa yaa xam lu baax la mbaa bon waaye ñoom provoqué wuñ ko ñu néew ñoo mën a provoqué dara ci seen dund nga xam ne ñoo tànn loola liggéey ko ba loola am ñu néew ko am ci àddina <laughs> mais ils subissent la vie mais ils ne provoquent la vie nit dëgg nag day provoquer dund bi mooy tànn ak dund réalisé ko. am na ñoo xam ne mu mënuñu réaliser dara lu xew daa ma accident la. loolu jëfit bu na amee xaalis accident la loolu jeex lu leen dal accident la waaye du ñoom ñoo ko créé. dégg nga li ma wax donte gisan nga leen ñuy xëyee ko dama ko ñàkk sax. du ci dara. tànn moo jafe. Mm-hmm. moo tax Cheikh day jàngale foofu. dila nela, xamal ne la euh, yoon wo gis ci dekk la jëm kon tan aw yoon ci tan la ne lolou mooy njàlbeenu benu tan dila jangal nak ne la waaw ah, man day dom ñun waw mu ne dama joggé te dekk ba hmm. tay depp nak di gatandu ñu rër ngir yóbbu leen ca dëkk ba. Mhm. Cheikh Ibra dane mhm. lu ngeen xam ci ku bàyyikoo ca dëkk ba. Mhm. tey gàttandu ñi réer. dal na koy gàttandu ku réer doom du aw ci yoon. ci <laughs> kuy gàttandu ku réer du aw ci yoon. yoon wi ku réer newu ci bi mooy li ma la waxoon sànq rek. kuy gàttandu ku réer du aw ci yoon kooku day am capacité. dégg li ma la mën a orienté wu. ay raccourcis. xam ay raccourcis. am géométrie spatiale. nga xam ne foo ne dina fa ne te xam fi mu ne moom xam nga ki xam fi muy ne réerul. ki réer mooy ki nga xam ne fa léeg mu ne foofu du xam. la sëñ Tuubaa ne dee leen aw ci yoon te bañ féetal. ndax kuy féetal ku ne fuy fii rek ngay mujjee. fuy fii kañ ko wax fi mu ne. xamul fi mu ne <laughs> ki nga xam ne nag moom fu mu ne. xam na ko. Mm-hmm. waaw kooku. mais sëñ Diagne dégg gi Cheikh Ibrahima dégg sëñ Touba moom. déggoo li ma la wax Cheikh Ibrahima euh, ci mission sëñ bi la bokk xam nga ni ñëwee kër sëñ Touba rek. Mm-hmm. ngay xamee ne ñoom ñaar. Mm-hmm. dégg nga li ma la stratégie la. Mm-hmm. ndax ndax ñu baax a baax ñi. sëñ Touba ngi leen fekk ci daaray Maam Mor Anta Sali. ñu mu ñu baax ñooñu. xam ne amuñu ay dend. sëñ Massamba Diop Saam. Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ jëlale naa nag ñu juddoo ci ëttu maam Mor Anta Sali moom muy maam ceer nook Anta ak gaa yu baax mhm. ñooñu sëñ bi moom ci ëtt bi la leen fekk mhm. bi muy woote it ñooñaa fa ne mhm. ba muy wax ne amatuma ndigalal jàngale waaye li ma sama borom sant ku ci ànd ak man tàmbalee waxtaane boppam booba Cheikh Ibrahima Fall newu fa fekkiwu loolu dégg nga li ma xamut ne Cheikh Rafal xam na Bamba ken rek ko xam ci adina moy rakam du bax seigne Saliou Fall seigne Saliou Fall seigne Saliou Fall rek nga dégg Cheikh Rafal di tuddu seigne Bamba mu koy deug mu diko wax motax tax ba sëñ Tuubaa wootee mhm. sëñ Saliou Fall moomee mhm. wax Cheikh Rafal Mhm. xam nga yàlla complémentarité la. kenn du yor lépp. da koy tas. yàlla d'accord loolu. Mhm. dafay tas mbir yi. Mhm. Cheikh Ibrahima li muy xam-xam sëñ Touba li mu koy ñëw àddina di ko xaar ak lépp. sëñ Saliou moo ko doon informé ci sëñ sëñ sëñ sëñ Bamba bi mu ko gisagul. est-ce que <laughs> benn bis dañoo nekk ci tool yi. sëñ Saliou dégg salgoof wax ak moom salgoof ak ñax la. mu samp ab gopam ne ko yeb sa xam nga Cheikh Fall yeb sa xànk lañ ko ran way lo sax ba tey léeb la saalio ci tar ba mu ne ko yeb sa mu ne ko fal mu ne ko hmm. dengali sal guuf gi hmm. wax mu ne ko lum wax mu ne ko seigne Bamba sa sang ba nga don xaar wote na hmm. ko ko wax fofu la teggee mo ndeysaan jaaratul këram di wër ni seigne touba xam nga kon mom té rek xamane mi ngi xaar seigne touba mu di ko wër ci turu bamba bamba mi nga xam melnu mel num Fall rek xam limay firi hmm nak ñi ci dess ñëpp dañu defe ne Amadou Bamba Sall ma ma dekk fouta ma dekk euh, salum hmm. ñu tuddee ko sëriñ bi mo andi bamba dedet bamba sunu borom da koo jaarale hmm nak bamba boko ko hmm. ñeen fuk ak ñent la jox ba ak mim ak ba 44 44 mm-hmm. 44 yooyu nag mm-hmm. boo duggee ci biir alxuraan ndax sëñ Tuubaa léppam alxuraan la mm. mooy ay sóoratu Rahdi mm. mm-hmm. sóoratu Rahdi nag boo demee ca biir jumtukaay yi sëñ Tuubaa yépp alxuraan tudd na ko fa ba tuddaale fa Tuubaa mooy saar yu indi moom gaale ko Tuubaa moom ay bagaasam <laughs> sóoratu Rahdi la woo ak kii moo yor wooteeb dëgg bi ma nga ci biir saar wa Touba Loum bu usnu ma abi ma ngi ca biir rax di boo boo demee rek. boo ko jàng boo jàngee saar wa rek. xitaun mutajawiraatun suufus Touba soosu. nga xam ni sëg yaag marché baa yem. fu ci ne day bariw nit ba noppi fee des fay jooy fii ñu di fa dee. te foo ci dem nit ñi du jeex xaalis ba du jeex. lépp ba nga ca biir rax xam nga li ma wax. waaye li gën a garaaw. mooy rax di bu jeexee saar wa ca tegu. Ibrahima. ñoom li leen boolee garaaw. xam nga li ma dox loolu ak yeneen xam nga Cheikh Fall moom. Euh, plateau yi mënee si ko ci waxtaan. Mm-hmm. borom day junj rek. waaw day junj rek waaw. Mm-hmm. léppi sëñ Touba alxuraan alxuraan sëñ Touba rek lay nettali. Mm-hmm. sëriñ Touba rek la alxuraan di nettali. alxuraan tant que déggoo ci sëñ waa ni nga ko ci war a dégg rek demal continuer jàng bul jàng nag pour ñu lay firil jaamu jël yàlla nga dafa am xam-xam boo xam ne mhm. ci jaamu yàlla lay bàyyi ko ak ragal ko lu mhm. bàyyi koo ci yeneen yi attaqullah wa yuallimukum waaw mhm. boobu boobu jàng laa lay wax jàng googu moom ci jàngub jaamu ak ragal laa wax ragal buy dëgg laa wax nag waxuma ragal ragal lu Sénégal dañuy ragal ragal lu yàlla hmm. lépp théâtre la ragal hmm? eh, yàlla sax théâtre la hmm? def nii sa sa say say loxoog di wax bu hmm. doon sëkk ma ah, da nga laaj sax nit mu xam dara tardel la sëñ bi xamoo béréb sàngam mu naan incha allah foog naa yaakaar naa ne te watum ñu naan waaj daa mën day wàllu tardel na la dégg mënam na la ne rek mën nga fële lépp théâtre la théâtre bi moo bari euh, lim kon Cheikh Ibra Fall ba muy jógee njëbi di wër sëñ Tuubaa moo lay xamal ne moom dong moo ko xam moo sëñ Saliou Fall mm-hmm. waaye keneen xamu ko bi mu ñëwee itam fi sëñ bi wootee ci Mbàkke Kajoor mm-hmm. jaar fi mu jaar booba Bàmba lay wër mm-hmm. sëñ mutu fa mbombo lu njëkk a wër ture ndax mbombo ji moog Bàmba bokk nuñ koy bindee ba mu demee gisu ko foofa mu dem ci sëñ Bàmba Silla tay ba Dakar wax Bàmba jooja ndax dégg bamba di fa xaar ji sëñ Moussa bamba ji rek la doon wër moom ndax dafa am ay critères yu mu doon xool waaw waaye mm-hmm. baatu bamba nag ci la tënku nag mooy mm-hmm. code bi mm-hmm. xam nga li ma la wax ba mu demee foofu nag fa la gis sëñ Matar Touré mu teg ko Cheikh Adama Gueye Cheikh Adama Gueye indi ko ci sëñ Touba bi mu gisee nag sëñ Touba nag ci ñaar fukki fan ci weeru koor googu nag ca la affaire ba tàmbali nag ndax li sëñ bi mën mënul woon a wax ci boppam Cheikh Ibra Fall la ñëw na waxal ko ko si teggin ndax sëñ bi munut ne maay sëñ bi loolu la yoonu murit di bañ. waaw ba fi ne nii sax. Mm-hmm. kenn ñemewu ko may sëñ bi. foo mm-hmm. ko ñeme. kenn dégg li ma wax. Mm-hmm. sëñ bi mënut ne may sëñ bi. sëñ bi mënut ne dee leen toog ci suuf may toog ci kaw. kooku wax mu xam nga ni sëñ bi ñu ñuunut ne. dee leen ma liggéeyal may daloo may dalu te yéen ngeen di soli sagar. yooyu yëpp sëñ bi mënu ko wax. te sëñ bi looloo caabeem. xéewal yi mu yaa ngi dégg li ma wax loolu Cheikh Ibra Fall ne jonge mooy xam fu dara ne hmm. woyof lu ba mën koo ronu ronu hmm. neex kàddu ba duyal la hmm. dégg li ma wax li sëñ bi yor looloo ciy duyu bu <laughs> defut loolu doo ko am <laughs> dellu si <laughs> ah dellu jonge baax na doom ndax jonge jonge mooy xam fu dara ne jonge foor na de woyof lu ba mën koo ronu neex kàddu ba duyal la. kon jonge mooy dëggal rek. mooy dëggal benn la. tey ku dëggal loolu nag. Cheikh Ibra Fall ko andi nag ci kër sëñ bi nag. mooy nag yaay sëñ bi nag. del toog ci kaw ñuy toog ci suuf. dégg nga li wax ngay joxe ndigal ñu di ko jëfee. yow yaay yàlla yaay yonent bi yaa yor xam-xam bi. Mm-hmm. yow yaay ndigalal yàlla. circuit bi ndigalal yàlla di jaar. pour yëg si fi yow fi yow la jaar. ndiggalal yàlla la la iblis weddi wan mm-hmm. ñu dàq ko mm-hmm. ndigalal yàlla loolee mm-hmm. moo jaar ci yonent bi wadd ci Cheikh Mat Bamba loolu moo di sëriñ nga féet ak yàlla moom mi ko xam dégg li ma la wax ndigal loolu la nit ñiy dabu ndax ginnaaw moo sànkoon ibliis dégg li ma la moo tax Cheikh Ibra wax ne adoom nu ngeen ni musloo ci seytaane ñu ne ko Fall xanaa di wax a onsu billahi mina sheytaan rajim ak jang alquran ak tud yalla na mm-hmm. ne ah day do muccagu ci setan sey fan kon lu ñu mana musal mu ne xawma ci lu gën mm-hmm. dem fa seytaane gental ngeen sanj ko muy ndigal muy ndigal daane seytaane day doom ndigal la gental mm-hmm. yeen nak bu ngeen sañcee ndigal du ngeen daje mu <laughs> ndigal de day deglu lu xam-xam deg ben tafsir bu leerale ni batum ndigal dama la koy laaj. ko bokkul nga dégg kuy firi ba wax la ko bokkul foo leen fréquenté yaakaar naa ne. ah doo <laughs> leen mës daje. ko ki dàq nañ ko. layin. Mm-hmm. du del seeti. fan ko dàqee boo fa dëkkee yow nu ngeen di gisante. dëgg sëñ Ndiaye ñu jàpp na ndigal jeex na nag. mooy li ma la xam nga ñooñu. Mm. mooy ñu amul cër ci sëñ Tuubaa rek xam nga sëñ bu du xewi. mukk waaye sëñ Tuubaa it bul defee ne. ndax baatu ñu ko moomoon dem na ñu ko. bokk dama ne dafa siiw léegi dama ne. waaw loolu mm. dëgg la. Mm. Mm-hmm. ña ko mooman dem nañu. Mm-hmm. ñi ko bokk fi des. Mm-hmm. loolu Cheikh Ahmadou Bamba mi mujj gën a moderne. Mm-hmm. moo ko wax muy alaaj Baara. ki nga xam ne c'est le grand défi du mouridisme. mais ni ko gars yi déggee daa mel ne. niñ ko déggee. day dellusi ci li la wax rek. murid daal euh, maamuñ. bis bu nañu gën a baax gën a yëg yàlla gën a seen aajo gën a faju te kenn du xam lu ko faj. ndax ñoom li faj seen aajo da leen a taxut a jóg. lu faj aajo sëñ bi leen tax a jóg te ndekete booy wër li wër faj aajo sëñ bi da ngay dajeeg liy faj sa aajo. dañoo tudd taalibe rek sama xel dem si sëñ sëñ Modou Fallou Fall sëñ Modou Aminta. Mm-hmm. sànq maa gis suñu réalisateur di ko wane ci écran bi. Mm-hmm. nga xamante ni moom foo ko xoolee rek. Mm-hmm. li naan prototype du mouridisme moom lay moom lay incarné. waaw ah, dafa dafa yeesal yoonu Baye Fall. sëñ Ndiaye ji mas naa wax ne ñooñu sànq ñu seen doon. Ah. déedéet. mas ma dégg nga mm. xoolal. Mm. waaye dama lay wax ci ñiy wax ne. Mm. ña ko bokkoon. xam nga loolu lépp teraanga la alaaj baax na bi mu ñëwee mhm. dafa yaatal mhm. bu ko neexan téye ko mhm. mooma moo ko moom moo toog ci bank bi dégg li ma wax waaye waaye boo boo dee guerre da ngay nekk stratège yaa ngi dégg li ma wax bu fekkee ne woon seen armée benn général la woon nga ñëw nag ne xool ko dal gi benn général léegi ni siti sëñ Tuubaa yi toll rek noonu la généraux yi toll <laughs> ñi ngay geeral lu ñu war a tiit alaaj baara loolu la indi mooy mooy li ma doon man yéen moom ngeen doon man mag leen rek ma fi teg kon ñoo ko bokk ñooñu nag mm-hmm. ku ci boole sa bopp ni mu ko waxee mm-hmm. ci nga mm-hmm. ku ca génne sa boppit it génn ca ndax sëñ Tuubaa nag dama la waxoon sank ben affaire. Hmm. teranga ju ne meun nako defal nit. Hmm. way du foye taw yi. Hmm. mukk tawhid dal ak jiko ju rafet sëñ bi du ko foye barki Cheikh Mat Bamba yoy mom koo ko mën a féete yaa xam seutum nga mba ya xam lo woyé sa bop ci sëñ touba gis nga bis bo fooyee lolou ya tuddu sa bop ci bir mouride yi bi bi moom boolewula ci sa murit day bëgg sëñ tubaa murit moom sëñ bee koy gënal bis bu murit tànnee xaalis ak pouvoir mbaa leneen lu mën a doon tànn na leneen lu déggoowut ak sëñ tubaa ndax sëñ bi nekkul foofu sëñ bi nekku fa sëñ bi néegum ñax sëñ tubaa ragalul tumu yooyu moom da ci daa xaritoog ñoom ba tuddanteeg ñoom doom tumu rankeeg wéet dégg li ma lox ak ay nattu Mm-hmm. ak yu mel nonu yoolu murid bu ko ragal dégg nga li ma wax yow xamoo sëñ tuba waa kon xéwal yii nii maam nga xamante ni moo ko mm-hmm. moo ko moo ko fi def moo nu ko jox mm-hmm. nan lañ siy jëriñoo te duñ ci sànku te duñ ci sànku mooy li ma la wax xoolal xoolal bew bew xoolal ca bañ a bew li sëñ déedéet bew gi déggoo li wax lépp ak bëgg la xoolal sëñ tuba bu la gën a xam nga bëgg ci xol lay ne moom ak am du benn bëgg ak am mom ak am. mom ak am. dama la waxone sank ne la. mu yonu murid dafa am ben problème de définition dañ dul firi mom ak am du ben mom xol koy def am loxo koy def. nit lu mom fu loola yennu nga yennu fa lum fam fanan nga fanan fa. lo am. fu la neex bayiko fa. sa loxo dong nga ko am. murid du mom khalis da koy am. saa soo moomee dara rek mi ngi sa biir xol te sëñ tubaa nunguwut a ànd ak lenn ci biir xol xam nga bëgg sañ tubaab bànneex bi ci ne dafa nekkul ci fi nuy foog bànneex te bànneex amu fa mhm. foofu nit ñi parce que boo wóoloo yàlla da nga dul ragal ëllëg li bi daan gis nga ëllëg yaatu na yaatu goo xam ne ëllëg yaatu na yaatu goo xam ne kenn xaju fa ku dul yàlla mhm. bis bu la àddina terrorisé nag ba ngay ragal sa ëllëg. yaa ngi dégg yaa ngi dégg li mu wax nekkatoo ci ginnaaw sëñ Tuubaa sëñ tubaab ku nekk ci ginnaawam hmm. doo ragal ëllëg ndax ëllëg yàlla dong moo fa dëkk. Hmm. mais bu fekkee ne yow da ngaa ragal ëllëg. Hmm. da ngay daal di dugg ci li tu dal tubaab bi épargne di denc dégg li ma wax ak a xof-xofi ak jëlloo moomut ndax ëllëg dara mënu ko fees. wallaay boo doon jël alali àddina bépp. ngir musal sa bop ci li nga yegne moy mooy alal adina ba du doy lepp la la wax boko non dajale mm-hmm. nga wax ngir fatte ëllëg ya nga fay ragal sa sa imagination di fa dem mm-hmm. mané ne bo fa solan lepp du doy mm-hmm. turu bobu dara mënu ko fess len rek ko mëna fess moy ban mm. yaakar yalla yaakar yalla tay yalla mi nga xam mo lo gungé ba bisub tay ji te mosoo manqué dara. te lu mos a jot indi na ko. lu tax ngay ñaaw ci moom jot. laa lay laaj. dëgg la Bamba. ne woon naa nee la bul bul caaxaan du génn tawhid mhm. ak tagg yonent bi. te tawhid ak tagg yonent bi bu defee ne ay bayit la. Mhm. comportement la ci moom. Mhm. mode de vie la. ay bayit la yu muy bind. lu mu def tagg na ci yàlla tagg na ci yonent bi léppam wax wala si sumtuhoo hmm. fikrun wa mantiquhoo zikrun wa hmm. xidmatuhoo shukrun alal minani la hmm? benn seconde benn nokki buy sànku amut nokki bu ne am na lu mu doon ci yàlla dundam gépp noonu la taggee yonent bi loolu mooy moom mooy sëñ bi nee naa la sëñ bi moom am na benn laaj bu mu bëggoon laaj sëñ Diagne waaw laaj bi li may njëkkee yow mooy nga defal ma benn njàngat si si ma jaaji ma mm. laaj ko ko mu tàggoo ko ndaxte waxtu bi fi ne nii moom xam nga sëñ Jaay yi njàngam bi dafa yaatu dafa naan sax du xaj ah, ndax moom dafa bëri yu mu indi tey ci jotaay bi eh, ni ñu ko bëggee woon népp nag mhm. defe na defe na ko de lu kawe njort ah, sax baax ndax indil nañu lu bëri ci mhm. mu melal ñu maam Cheikh Ibrahima Fall ci ci ci ci ci côté bu nag ci mhm. déggal sëñ Touba ci bëgg sëñ Touba ci pas-pas bi wan nañu yoon wi wan nañu yoon wi daal waaye fii jamono toll parce que man maa ngi ci niñ tumranke ak taalibe ndax damay dégg mas na ma koo dégg sax koo a wax ni nañ bàyyi bu ñu nee lëggeel sëñ tubaa rek ñu defee nag gori tool laat tabaxi kër. Hmm. ay dégg léegi am na ma dégg naa ko ko wax man. bi ci des tamit mooy tam jaaxal ma te man dama dégg te lii ma wax dama ci ko dund man. Hmm. ndax suñuy maam ak suñuy maam fañ bokk. Hmm. ñu dund ko. ma xam ne. li ñu daan jëfandikoo ñoom. ci ñaqal sëñ Bamba ak Cheikh Ibra Fall lañ ko amee te loo bëri bëri xam-xam nañ da cee dégraté te lay dégraté sax ci zaahir la ñuy jaar yow. ak ba pare te ma gis Cheikh Ibra wax ne. téere téye ay wax la. Hmm. jàng topp tànk la. Hmm. wax ne ku yàlla bindu ku képp koo xam ne mënoo lu yàlla bindu bu waxee nga xam ko Cheikh Ibrahima nee na Alxuraan sa waroo koo firi. ce ndax làkk day taxaw sa wet di làkk ba yeggal nga naan lu muy wax yàlla mi ko sàkk bu waxee nga ne xam naa ko. te nee na def ak dindi fal ak folli ay araf muyu ko Cheikh Ibrahima nee ñaqal góor yàlla koy mel. te gis naa ñooñ groupe boo xam ne. Hmm. wóor na ma ne ku leen di déglu. doo liggéeyal dara sëñ Touba. <laughs> Hmm. te bu doon ñoom ak jumaay Touba taxaw moom. dëgg la waaw sëñ Ndiaye ji loolu laa bëggoon ngay. <laughs> loolu nga wax mooy dëgg. xam naa ni si résumé rek ñu tàggoo. <laughs> waaw xam nga li moom. li nga sànq rek waxtaani Touba moom. jumaay Touba. Hmm. gëm ak liggéeyal ko. Hmm. te séntu woo lenn lu dul bëgg sëñ rek ko taxawal. ci leneen taxawulu ko de. loo gisit ci yoon wi mu taxaw looloo ko taxawal. te yoon wi réussite sociale bi mu am. wëral àddina fu ne nga dem fa mm-hmm. nga ubbi livre yi académie bu ne nga jàng fa mm-hmm. doo gis ci sociologie mm-hmm. science sociale réalisation bu toll bi Sëñ Tuubaa am ci masse ci ay mm. mbooloo dëgg la dëgg la mënoo koo am dëgg mbooloo mu mën a toog fële ne nañu defal sëñ bi daayira am at ñuy daje am seen trois millions wut seeni kaar ñëw ba buntu kër sëñ Sidi Moxtaar 5 heures du matin tok di fa yeggale seeni nelaw ngir bu sëñ bu ubbe ñu siyaare ko sëñ si moxtaar mom yalla ay kessel bu xey du lacc ana ñi joxe bu soxlaa kër ngànn chauffeur bi day genn romb auto yi xaar mu jëm keur ngann du len ne sëñ baa jëm keur ngann ñom ñoy xamni ne bi keur ngann la jëm ñu topp ko ñu fi yee seeni chauffeur topp oto sëñ bi mhm. mu dem ba keur ngann te sëñ bi xam gim xam ne ay oto topp na ko lu tax mu dem génne pliyaanam la ko fa yóbbu ca lay ne ba ubbi jot mu ubbi toog di nuyoo mbooloo mi dajale woon les pendant un an trois minutes la ñuy toog ak moom dëgg ko seen trois million mu ne yàlla na ngeen ci dajee ngërëmal sëriñ bi dal di ñaan ñaanam googu ñooña raayoo ko génn na sun siare be ka neex koo xam sa 3 minutes la la may ci tam mu gën a la un an bo dajé won loolu compilation du temps kooku temps mo sakkan ki mën def lolu ki mën créer lolu de nga limu wax mu Cheikh Mat Bamba foofa ngay xol di ko gëm ki gis ko kooku sel makha xam nga ne woon naa la sank fi problème bi moy kenn mënatut a wax kenn dara ndax mënu fe wax kenn da xamoo dara ko mhm. waxi ngeen xulo waaw dégg li ma la waaye nit mooy dem ba àddina xamal ko ne ko xamul dara. <laughs> yaa ngi dégg ko xam dara gëm sëñ Tuba. ko xam dara liggéeyal ko. Mhm. parce que Cheikh Ahmadou day waraate par l'image mhm. il ne prêche pas par la parole. Mhm. sëñ Tuba dana wax kaay ma wan laa ma gënal kaay ma wax la. ndax kaay ma wax la moo yàq àddina te kaay ma wan la nag moo koy defar. une image vaut mieux que mille paroles. ab liy kaw nii bés ku li raay la wax raay. abdan surora li kulli raay wala li wasaabi wa biir israil abliye kaw nii bishra kulli raay kon bishra kulli raay mbégu kii xool marketing la sëñ Tuubaa daa fexe ba léppam di marketing jarul wax bu la bëggee wax ni ma mën a def nit day jël maamun rek defar ko jël al yu bari la ko leen li mu bëgg du ci waxante mas ngaa gis benn xasida bu sëñ Tuubaa bind seexal Hmm? man nee ma baatu arab buy yi seexal ndax sëñ bi am am na ci xës mais da koo def hmm. kon sëñ bi li ko ñor nu mu ko defee ci tënk ah. ni mu ko defe hmm. dangay sant njaay jógee njaayeen nëbbutu ndax ah. sëñ da ngay nëbbutu de <laughs> bu njëkk ba booy dem da ngay nëbbutu boo tàggoo say bokk téye la parce que defoon nañ ne du lislaam laay laay ji lañ ko daan wooye nga làqutu dem wuy dem mbàkke kajoor sëñ tubaa mom lim mu woote xam na ko boo ñëwee ci la lay duggal hmm? ci loola mu nekk ci li programme bi mu nekk ci la lay duggal hmm? ah, fofu lay daadalee 3 mois nga fay def hmm. trois cent mu ne la ñëwal delu njaayeen sëñ tubaa du tricher au lieu nga nga joggé njaayeen mu lay yóbbu njóobeen ba saalum na sax fofu gan la fay doon bu démé dinañ ko accepté déedéet fañ la bañé won né bo ñëwee torox fa la lay delloo du dula du la ñu ne sax xoolal nu ko yére nuru na nit déedéet sa yére yu xotti kuy xorom yee moom ngay sol lu la ne demal raggu déedéet doo fi toogaat de bu la yiwee da ngay dem sax saw ñaq doo jaar feneen doo jaar fenn saalañ amooy dàll sonn nga fi sonn bopp booy xool ci benn bërëb da ngay fixé da ngay def xujj nga ne loolu melokaanu def la ku saalañ xorom ñaq amul ci dàll soli sagar ba bari ni xujj kooku mooy dof rek xam nga kooku bu ngeen dajee ci yoon wi. Mm-hmm. da nga war a daw. Mm-hmm. mais boobu sëñ Tuubaa charisme ñu ngi def ci yow. Mm-hmm. ak leer gi moom loolu def ci yow. doomi aadama boo dajal du ko àttan bu la xoolee du xef. sëñ bi moo lay bu abordé sëñ bi sant wax nga ne ko njaay mu ne njaay sang moom bëggatut a xam moom nu mu sant yow ginnaaw xam na ne njaay nga sant rek. fàttali jébbalu na ci yow. yoroo benn téere nag bu la benn màndarga malokan ko wara a dal nga yo nit ñi nak di top yo ku ngeen dajel mu top la mm-hmm. ngeen jaar ci dëkk di ñaanu ndox mm-hmm. ñoñu simple seeni kër ak seeni soxna top la mm-hmm. ne boy delu njaayeen ñetti téméri goor ñoy wuyoo njaay sa njaay ji <laughs> te bu ngay jóge señ bi yow képp lo ba nga señ bi yow ko won way li way señ bi lima lay wax ni yagul sunu maam yépp ci lan jaar dëgg la nga ñew ci pencum njaayeen sa yaay dula xamé mm. buñ ko ne ya mati sëñ Isaa ñëw na day day day naaw moom rek lay xàmmee ci dëkk. ndax mooy sa yaay. bu ñëwee ba yegg suuf ndax mbooloo mi la wër. taalibe yi ñoo ñëw yëkkati ko dootul tudd yaa mati mukk soxna si lay tudd. ko teral di ko ñu sancal la ci penc ndax xejatoo ci pencum njaayeen. dañuy jàll ca wàlla dogal la fa penc. tudde ko Daaru Njaay. Hmm? Daaru c'est une révolution culturelle. Ah. sëñ Tuubaa ko fi daaru moom sëñ bi ko fi daara la fi kon daaru Ndiaye njaayeen rek la tuddoon. Hmm. njaayeen rek la tuddoon bis bi ci sëñ Tuubaa duggee lay tudd daaru Ndiaye. yomb a xàmme nag. sàkket yi day bees moo di daaru yëpp. Hmm. Hmm. saxaar si daw ndax kafe geek laax beeg togg yi. dàll yi bari ca buntu kër ga kenn du duggaalee dàll ci biir kër ndax njaayeen du mu du mujj raaf kon beneen njaayeen. ah kañ ci la jëm xaaral li koy raafal. borom dëru bu toogee ci kaw. Hmm. waaw bàyyam ci toog ci suuf lay toog. Hmm? Hmm. nijaayam toog ci suuf bu ñu yónni nijaayam ay ñëw. <laughs> ah yónni sa nijaay yi sëñ Tuubaa ko fi xewal. maa ngi nijaay yi sëñ bi def sakk. yem foofu de. njaayam jii mooy sukkuloo góor ñi. njaay yi borom dëru. mooy sukkuloo góor ñi. di leen nëbbuloo leen bonle. di leen waneloo leen baaxle. di leen joxe loo leen gën le <laughs> fekk nga mboolem say morom yi nga fa bawoon ñëpp. ñëpp bokk ci sa njaay gi. aawalu bu yàgg sa njaay waaw ba seeni taaw lañ lay jox nga awaloo ko. <laughs> loolu neex na loolu de. sëñ li muy def ci nit. Mm. moom moom rekk am solo. waaye dema ne. Mm-hmm. sa baay bi la rey la nam xar. Mm-hmm. Mm. foofu lu sëñ Tuubaa grave. Mm-hmm. ne ko deqet ren di tudd la jox la santam. nga xam ne transmission sant diggante bàyyi ak doom. nem xate. yow nga dem ci sëñ Tuubaa dellu si sa njaay ji di sukkaloo góor ñu ñuy raam te sa bàyyi bi nga fi bàyyoon mu jox la sant wi njaayam ji mënta dàq ginaar sa njaay ji lay tàggoo waaye dégg nañ la bu baax dégg nañ la bu baax kooku moom wax dëgg yàlla <laughs> tàggoo tàggoo rek <laughs> moom moom moom ba ñëwaat rek lii moom moom moom mënal na ko amiin amiin baag Cheikh sëñ sëñ Mamour waaw sant nañ baax sëñ Diagne xam nga dafa leer sëñ moom kañ du ay araf ñu lay ñu lay lay lay ci yow jël nga rek ci Touba sant nañ bu baax ngi Cheikh Abdou Karim Mbacké rek mu yàgg fa loolu amin, te ñu koy jot li sunu nuyoo ak sunu ziar amiin amiin la ku ñuy ñaanal la ko bëgg na leen lool xam bu leen doon bàyyi leen xel xam nañ ko baax di ñaanal mboolem sëti si di ñaanal mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima di sant bu baax mboolem ñu doon topp ñëpp nag di ñaan lépp luñ ci am ñu daje ceeg tawfeex amiin amiin amiin barki Fall di ziar bu baax nii nu mel nii ndeysaan moo moom moo ñu solal ngir jëmmi Cheikh Ablaye Camara di ko maam As Camara di ko ziar bu saa soo jëlee mbubb mhm. jox ko nitu yàlla mu di ci jaamu yàlla nii ngeen di def nee na saa su ko solee di ci jàmm wëñ bu ne day sàbbal yàlla di la ñaan. allahu akbar alhamdulilah Ablaye Camara dina xam ne. seen seen wëñi mbubb yi bu ci ne. waay waay ñu sàbbal yàlla di sëñ bee wax li ma la wax. ndeysaan macha allah. waaye sa sang bee ko njëkk a defal sëñ Abdou Karim Mbacke koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla. <laughs> di di di di ziar mboolem mbokki jullit ak mbokki taalibe yi doon teewlu. si euh, émission bi di ziaraat baax di jégalu si xaabaabal bi. Mm. waaye te di beral nuyoo ak ziar ak ñaan Euh, sunu waajur yi si euh, kër ga euh, sunu waajuru jigéen yi nga xëy ni mu ngi doog a jóge penku ñu ngi ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér te kaala gi sunu borom dogal mu dem ay yooni yoon ak mboolem waajur di ziar bu baax a baax sunu yaay Oumou Amine Ndaw si taxawaay bu am solo bu wax dëgg yàlla sëñ Mamour mhm. di ziar mboolem mbokki jullit ak mbokki taalibe bàyyiwuñ kenn di santaat bu baax a baax mbokk yi ñu doon gunge si émission bi baay euh, Baye Mouwakh Diagne Serigne euh, Madieng si waaye ci réalisation bi Serigne El Hadj euh, bëgg fàllu di ko ziar bu baax a baax ak Serigne Lamine Ndiaye si wàllu son bi ak vidéo bi di ko ziar bu baax a baax mboolem mbokki taalibe yi nga xamante ni ñu ngi doon ànd ak ñun kon sëñ Malick ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla El Hadj Fallou Syll di ko ziar bu baax a baax ak mboolem mbokk yi jox leen daje incha allah si Jazbul Murid si talaata bii ñu dëgmalaat santaat ba sëñ jaaji nag si euh, xatoon na loolu ban koy woo waaye mu bàyyi lépp waaye nag Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra rek euh, Cheikh Abdou Karim di la ziar bu baax a baax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin amin amin amin barke maam Cheikh amin amin